s'approcher. C'est donc c'est permis de sortir les portables. On va immortaliser bien sûr ces moments. Voilà, donc euh, on va souffler les gâteaux de la diva, la de la soirée ce soir. Elle est là, elle se nomme Carole, Valérie, madame Diouf kër depuis bëggoon a ca jege si la ani waa VIP non ñii loolu def mais nañ xoolee luñ créé ñii lu baax euh, lu neex <laughs> euh. <laughs> elles vont chanter pour euh, Carole les jumelles mettez-vous là-bas s'il Yasmina am na les jumelles yi voilà on a beaucoup d'invités surprises hein? donc on va démarrer avec euh, les jumelles leurs sœurs c'est bon. na falaas yi tàq na. su ne ca lamb yi tàq. falaas yi tàq na instant yii. joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Eva joyeux anniversaire. bu dellu si moo neex bis bu dellu si moo neex bis bu dellu si moo neex Eva bis bu dellu si moo neex happy birthday les jumeaux Ani Oumar Ani Oumar Lemzo ayca jege si leen et Léla Carole et Eva les jumeaux vous allez chanter pour euh, Eva vous savez chanter les jumeaux c'est qui elle c'est toi la grande chanteuse hein <laughs> ah Ba Cissé bokk. ani toxkati nëboo yi fii kan moo yore alimet toxkati nëboo yi ana ana ñu voilà sama ko ngi nii briquet bee ngi doon. briquet boobu. ah dañ koy ñaanal bu baax a baax. ñu koy ñaanal longue vie santé prospérité euh, beaucoup d'argent. nga dund ba bébé grâce di la jëndal ay oto ay villa nga fekk njëriñam ñu bañ a séddale dara sa ginnaaw yow moom mënuñoo ñàkk a barkeelu ci baat bu neex bi euh, xanaa da koy yëkkatil benn eeru Fatou Laobé rek mu daal di am dara. <laughs> On va appeler un jeune monsieur très talentueux. Euh, chez nous, les chrétiens catholiques, il fait partie de, des artistes phares. PNJ, Eva, l'ensemble des chrétiens, ils sont en temps de carême. Raison pour laquelle on l'a appelé aujourd'hui aussi pour communier avec nous. Euh, il va chanter, euh, bien sûr, pour Carole, Valérie. Il s'appelle Kofi. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Blessed will they to see my maker. Blessed will they to see more. Never. Happy birthday to you. kii yàlla dafa def mu mu doon suñu jabar mu nekk nit bu baax nit bu bëgg jëkkër bëgg ay xaritu jëkkër ëmbul na yaru na tey na te bi mu toogee ci di sëy ba léegi kenn mosu koo dégg ci dara te nag mi ngi bëgg a yàq kon mënuñu def lenn lu dul ñaanal ko yàlla defal ko jàmm boole ko borom këram ñu yàgg di ànd ba ñu yàgg di feete lii Sidi daa waroon ñëw léegi ñoo waroon ànd mais yàlla dafa def studio laa ko bàyyi mu ne ma jiitu leen ma mais lu ma guddi guddi dinaa ñëw mais comme nekku fi man maa ngi fi rek mel na ni waa label bi yëpp ñu ngi fi waaw muy Makhtar muy parce que jumeaux yi moom yàlla dafa def ñii ñëpp leen bëgg ñëpp ñii amuñu ay ennemis ñëpp leen bëgg kon aussi tamit bu ñu amee seen jabar muy anniversaire ñu def lu dul ñëw teew ci waaw xam nga suufleel ko gâteau bi jàppale ko woyal ko xëy na baat bee xaw a neexul rek ci musique laa yëngu mais xam nga mooy loolu daal non mais oui waaw mais kon ma ne de générosité avec un grand que j'ai connu à Yamoussoukro à de la Coupe d'Afrique Nations avec euh, mes chers et partenaires ambassadeurs les PNG donc euh, on te souhaite un happy birthday donc il y a Ngoura Thiela comme dit chez nous les donc on te dit il euh, y a Ngoura Thiela il y a Merci. Ok, bonsoir à tous. Hoje está sentado, talvez na rua. Mas nunca está me preocupado. Da onde que você está longe me? Hoje está sentado, talvez na rua. Mas nunca está me Sinsabibababa, Ncatasiparababob, Maujin sabima, amor ingrato, amor mugir, ai sinsabiba, Ncatasiparababob, amor insabima, amor ingrato, ai, ai, ai, por isso minha vida, ai, ai, chacun disait, de chacun à chacun. Chacun n'oserait plus parler, de chacun à chacun. Bonsoir. Donc, j'ai pas les mots. Non, comme Merci. Donc, def ma dul di leen remercier ñëpp xam nañ ni ñu jour de semaine mais euh, ngeen dagg seen nelaw ngeen dagg seen activité yéen ñëw defal ma surprise donc yéen ñëpp amuma seen fay donc je vous porte dans mon cœur je vous aime merci beaucoup. merci alors Eva am na benn jumelle bu tudd c'est comment on la star Binta elle est là Binta mets-toi là alors Toch Toch da ngay wéyal Binta ñu souhaité ko un joyeux anniversaire. Elle s'appelle Binta, la diva. Merci à Sotel.